Mamadou Sy Albert maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay ngay analyste politique sa xel màcc ci lépp loo xam te ne jëm na ci wàllum politique te gis nañ ne euh, assemblée nationale jot na vote nag jëm rek ci taxawal fii commission d'enquête parlementaire loolee mel ni euh, doon na ndam ci ki nga xam te ne mooy Karim Meïssa Wade. waaw mën nañu wax de Karim ak PDS am nañ ci ndam loolu lañ doon euh, laaj assemblée assemblée def na résolution nangul leen. pour taxawal benn commission euh, commission d'enquête commission boobu nag dina jéem saytu processus électoral bi naka la demee lan moo ci jaarul yoon lu ci jaar yoon dina saytu itamit lu tax ñu dàq euh, Karim ci élection bi bokkul ci liste bu conseil bi donc loolu moom euh, ndam PDS la loolu lañ doon laaj bon ñaareel luñ ci am aussi mooy que déglu nañu leen ñuy wax ne que nañu dàq élection yi loolu euh, PDS nee na loolu moo xeexam guy ñëw ci euh, report bi boobu nag moo amul quand même jubóo ni di assemblée nangul nangugul loolu nangugul report bi am na ñu bari euh, ànduñu ci ci report bi. alors ci report boobu sax la ñuy des ndaxte euh, gis nañ ne jamono ji moom la ñuy yëy yàbbi nan est-ce que duñu aj li nga xamante ni moo jëm ci jogante njiitu réew mi atum 2024. waaw loolu moom euh, PDS lu mu wax leer na ñoom report bi la ñuy laaj pour Karim mën a bokk ci élection bi. Mhm. bu ñu xoolee aussi ci groupe parlementaire Benno bi ci APR am na ñi nga xam ne ànd nañu ànd nañu ci ñu reporté. wante ci biir Benno am na ñu ci àndul ku mel ni parti socialiste ku mel ni AFP euh, ak yeneen parti yi nekk ci coalition Benno bi ñoom d'accord wuñ ci euh, dàq élection bi donc euh, boo xoolee assemblée daal mën nañu wax ne am na benn pàcc ci APR ànd nañu ak PDS pour ñu dàq élection bi mais majorité bi moom àndul ci dàq élection bi donc am na xiiroo ci biir assemblée bi euh, léegi nag euh, opposition bi aussi ànduñu ci ànduñu ci ci report bi euh, léegi nag xamuñu loolu la lu ñu mën a wax daal mooy que PDS li mu wax am na ñu ànd ak moom mais ñu gën a bari ci opposition wala ci pouvoir bi ànduñu pour ñu dàq euh, élection présidentielle bi. alors gis nañ ne euh, lu tolloog euh, 120 députés ñoom ñoo voté ne ànd nañ ci waaye 24 ànduñu ci groupe parlementaire tamit bu yeewi askan wi moom nangul benn yoon siégé ci lu jëm ci commission bile. waaw mooy loolu que commission bi su dee rek pour bu doon dañ ko taxawal pour saytu. lu ñu juge yi ñu tuumaale ñëpp ànd nañ ci lool pour ñu leeral li nga xam ne am na ay juge euh, des magistrats yu nekk ci conseil conseil dañ leen tuum corruption euh, euh, loolu ñëpp ànd nañ wala lu ñu àndul nag mooy dàq élection bi loolu loolu moo indi xaajaloo ci biir assemblée bi ñu gën a bari ci parti politique wala ci député yi moom ànduñu ci dàq bi wante nag PDS moom nee na dina xeex pour ñu pour ñu dax euh, élection bi. alors euh, li jëm ni tamit ci crise institutionnelle loolee moom la ñuy euh, waxtaanee jamono ji mooy laaj bi samp est-ce que nekkuñu ci sax jamono jile. ah ñu ngi ci crise ñu ngi ci crise crise boobu ñu ngi ci crise boo xoolee commission bi ñu taxawal ni li mu nar a liggéey loolu day weddi liggéey conseil constitutionnel. donc euh, ñoom assemblée lu ñu jël ni beneen processus électoral la ñu la ñu taxawal ni et boobu dafa wuute ak processus bi nga euh, électoral bi nga xam ne conseil constitutionnel moom la def ba àgg tey jii fi mu nekk ni donc ñaari processus yi day wala ne crise de confiance am na diggante assemblée bi ak conseil constitutionnel bon bu ñu xoolee aussi parti politique yi Euh, PDS amul benn confiance ci conseil constitutionnel ñu ànd ak PDS naka noonu donc ñu ngi ci crise crise de confiance moom am na crise de institution yi aussi diggante assemblée ak conseil constitutionnel am na euh, même processus électoral bi tey ji euh, waa PDS àndutuñu amatuñu confiance ci processus électoral bi lu ñuy laaj mooy ñu ñu bamtuwaat processus bi donc pour wax la daal que ñu ngi ci crise moom crise bi moom euh, door na door na ci assemblée bi. très bien alors mu bëri tamit euh, ci euh, conseil constitutionnel ay membres yoo xamante ne ñoom xel tey na jëm rek ci li nga xamte ne mooy lëkkaloo ak yenn ci ay candidats ba ci sax premier ministre bi Amadou Ba ñoo ngi xalaat ne est-ce que bëggul confisquer li nga xamante ne mooy nguur gi. waaw fu fu mu nekk nii moom lu nekk mën na mën na mën na am. ndaxte bu dee rapport euh, commission d'enquête bi euh, def nañ ko ñu tuumaale Amadou Ba Amadou Ba nekk premier ministre nekk candidat soo moytul mën nañ ko bu ci yoon loolu crise bu rëy la nar a nekk premier ministre pour nga atte ko ci yoon il faut nga am haute cour de justice te haute cour boobu amul amagul donc loolu euh, crise la la la a indi ba suñu reporté aussi élection bi processus électoral bi yëpp bon la la la ñuy la dax loolu crise bu rëy la en matière électorale mësul am ci Sénégal euh, pour wax la daal que crise bi moom mu ngi mu ngi suñu kanam boo xoolee exécutif bi aussi xamuñu euh, ministre de la justice bi fan la war a taxawee est-ce que day wax ne nañu dàq wala est-ce que day wax dañuy def moom mooy organiser élection su waxee day organiser organisation dina am mais bu dee dafa wax ne day dàq loolu moom kenn du mën a voter. alors euh, ñu des ci jàppal bàyyi bi nga xamante ne nag moo amee euh, ci assemblée nationale Thierno Alassane Sall mu ngi naan maam euh, Mame a Fam ak ñeneen dañ ko jot a agressé ba sax war naa mën a déposer plainte nan nga gisee situation boobu de. waaw lu ñu gis moom eh bien assemblée bi amoon na amoon na tension waa PDS ñoom dañu attaqué Thierno Alassane ndaxte moom moo defoon recours euh, contre candidature euh, euh, Karim Wade bon pour ñoom dinañu xeex Thierno Alassane wante nag mu ngi ëpp loxo ba bu amee xuloo xëy na loolu xel mën na ko nangu mais ba dem ba bugg a xeex moom. Euh, day sóoraale sécurité am loolu tax mu porte plainte pour au moins mu am sécurité ñu mu ñu bañ ko gaañ ci ci euh, fii ci élection bi candidat la mm-hmm. bon léegi nag euh, problème de sécurité moom dina am ci ci campagne bi def naa ne Thierno Alassane moom loolu la sóoraale porte plainte avertir justice bi suñ ko yóbbee ci yoon baax na mais muñ même suñ ko yóbbul ci yoon au moins pour euh, wax pouvoir bi mën nañu war war nañu assurer sécurité am ndaxte mm-hmm. candidat la. Mm-hmm. donc euh, loolu daal situation bu xaw a doy nag. pour pour pour pour pour Thierno Alassane. Union européenne yi tamit nar naa tasaare lu toll ak cent observateurs yoo xam ni daal dañuy ñëw euh, ngir mën a saytu bu baax a baax li jëm ci njogante njiitu réew mi euh, atum deux mille vingt quatre ci jamono joo xamante ne euh, ñoo ngi xalaat ndax aj élection bi duñ ko def mu mel ni loo xam ne jafe-jafe mën na ko jur. waaw lu lu baax la observateur euh, Union européenne moom yàgg nañu yàgg nañu ñëw ci élection ci élection bu amee Sénégal dañuy ñëw Union européenne aussi ci partenaire Sénégal lañu la bokk euh, ñoom dañuy financer dañuy def formation dañuy auditer seen observateur yàgg nañu yàgg nañu ànd ak Sénégal gunge Sénégal ci élection donc suñu ñëwee teew euh, loolu day firnde rek ñoom ba léegi ay partenaire lañ waaw lu fi xew nag. Euh, xam naa ne moom seen xel du dal ndaxte nga yónnee sa observateur ba commencé euh, déplacé wu fekk coow euh, dàq élection ñëw na loolu moom bu dee observateur sa xel du du du dal ndaxte campagne bi mu ngi door vendredi et loolu moom dina dina indi quand problème ci observateur yi seen xel du dal ndax xamuñu ndax élection bi dina am wala du am loolu nag euh, defe naa lu xaw a mësul am ci Sénégal xëy na dina leen bet mais comme am nañu expérience dinañ topp ba xam ndax euh, élection bi dina am wala wala du am mais en tout cas observateur lañu euh, am nañu am nañu am nañu baat ci Europe ñoom lu ñu mënti yóbbu ci union européenne loolu la union européenne nar a jàpp. leneen jëm nag ci euh, recalé yi euh, tey ji ban choix nga gis ni moom lañu ñu war a def euh, ngir rek mën a ranger wu ci ab benn candidat. waa ci yi am na ñi nga xam ne commencé nañu dem ci coalition Bassirou Diomaye bon ñeneen ñi ñu ngi waaj pour dem ci yeneen coalition yi loolu lu muy firnde daal mooy que fii ak campagne bi di door. dina am ay regroupement ay ki nga xam ne ñu bari euh, ci recalé yi dinañu seet ban coalition moo leen gën a jege ki nga xam ne daal euh, bokk ngeen gis-gis wala euh, am ngeen ay relation am na confiance defe naa fii ak campagne bi di door dina am regroupement des coalitions recalé yëpp dinañu dem ba rejoindre coalition bi nga xam ne doy na leen ci élection présidentielle bi. alors lu jëm nag ci euh, Bassirou jomay Faye euh, gis nañ ni euh, doyan des juges daf ko mujjee lankal lii di demande liberté provisoire tey jii nan la mën a def ngir moom itamit mu mën a battre campagne te mu nekk ci kaso yi. waaw fu mu nekk nii comme nekk na téye nañ ko mu ngi ci loxo yoon. Euh, am na coalition am na ñi nga xam ne taxaw nañu pour defaral ko campagne am euh, ñi nga xam ne mooy seen directoire de campagne bu Bassirou ñoom nag dañu war a toog xool situation bu euh, Bassirou nekk ni naka la ñuy profité ndaxte loolu mësul am ci Sénégal nga nekk candidat nga nekk ci ci loxo yoon loolu mën nga ko ex mën nañ ko exploité ci terme communication daal suñu liggéeyee bu baax mën nañu mën nañu jaay bu baax a baax euh, candidature euh, Bassirou loolu mën na indil euh, ay ay électeurs électeurs surtout yi nga xam ne d'accord uñ ci niñ ko téye ak d'accord uñu aussi Sénégal ni mu doxalee ak waa waa Pastef bon loolu dafa laaj nag directoire de campagne Bassirou toog waxtaan pour xool naka la mën a communiquer ci situation bu mel noonu. li jëm nag ci Cheikh Tidiane Dièye parce que gis nañ ne présence physique bi tamit def ci am solo euh, moom moo ngi soutenir kii di euh, Bassirou Diomaye fay waaye tamit nee na dina battre campagne. voilà ñu mel ni noonu ñoo ñoom Cheikh Tidiane Dièye euh, par exemple que moom leader d'opinion la ci wàllum gouvernance lay lay liggéey ci wàllum. liberté donc kooku mën na indil dara directoire campagne bu Bassirou su hmm. su suñ ko joxoon euh, euh, ci place ci campagne bi mën na defal euh, Bassirou campagne ci wàllum gouvernance ci wàllum liberté ci ci wàllum participation donc ñoom ñoo war a gis daal suñu toogee ak ñi nga xam ne ñoom ñëpp ñoo bokk ci directoire bi ñu xool Euh, ku nekk ci ñoom lan lan nga mën a lan nga gën a xam lan nga mën a indil euh, loolu suñ ko defee euh, ku mel ni Cheikh Tidiane mën na indil quand même Pastef ak ñeneen ñi aussi ñu am expérience lañ yàgg nañ ci géew politique bi ku nekk ci ñoom mën na indil dara Bassirou mais nag dafa laaj ñu toog waxtaan seen biir ñu xool naka la ñuy liggéeyee ci campagne bi. très bien Mamadou Sy Albert jërëjëf may fàttali rek ne analyste politique nga sa xel màcc na ci lépp lu jëm ci wàllum politique ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. a Awa maa ngi lay fay bu baax.